wàllug euh, feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax tey euh, Covid 19 te lëmbee àdduna bi yëpp loolu kenn ku ne ci ñun xam na ne amul tey dëkk ci réew ci àdduna bi fu mu fu mu fu mu amul. bi loolu amee nag président de la république dane dafa njaboote réew ku njaboote nag da nga war a su sa ci fenn fi nga def as lëf loo xam ne lii nii war na leen mën a accompagner lii nii war na leen mën a yombalal. moo tax mu ne askan wi dinaa leen jox ñi nga xam ne yàlla def na seen loxo jotul seen gannaaw vivre de soudure mooy li ñu naan ay ceeb ak ñu mel noonu loolu nag suñu koy def ki sàmm ci la bokk kii béy ci la bokk kii napp ci la bokk kon loolu cagnotte commune la kenn ku ne ci nga ci am wàll mais parallèlement à ça dane suñu joxe nit ñi ñu lekk ñu naan jur gi timit ci la bokk kon jur gi tamit nañ ko wutal lu mu lekk moo tax mu jël lu tolloog 3 milliards teg ko ci suñu loxo mu ne nañ ko accompagner éleveurs yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi 3 milliards yooyu 2 milliards yi Covid la 1 milliard bi moom mooy financement boo xam dañ ko jot ci ARC African Risk Capacity loolu noonu moo nekk cagnotte 3 milliards boo xam dañ koy jënd aliment de bétail jox ko éleveurs yi dimbale ko éleveurs yi pour que situation bi ni mu méttee ñu mën ko euh, topp waaye man cee génn ci jàmm incha allahu taala par rapport ak li wàcc tey Nioro mooy les trois cent tonnes d' aliments de bétail yi ñëw tey Nioro loolu bokkut ak fonds Covid 19 loolu bokk na ci li ñu wax fond OSB bi nga xam ne préfet yi ñu ngi ko saytu ñu ngi ko gérer au niveau de chaque département du Sénégal parce que comme ni ma leen ko waxee président de la République bi mu ñëwee en 2012 def ne ki dëkk ci àll bi ak ki dëkk ville bi ñoom ñëpp yem ci man. kon baax na bu dee sàmm la bu dee béykat la bu dee nappkat la kenn ku ne gis boppam ci politique bi nga xam ne maa ngi koy mëne moo tax mu jëloon cagnotte jox ko éleveurs yi éleveurs yi tamit tas ko ci département yi su ñu demee ba période yi nga xam ne moom la ñuy wax période de de de soudure préfet yi dajaloog éleveurs yi ñu def li ñu naan commande su ñu yónnee euh, autori pour demande d' autorisation de commande ñu apprécier ko autoriser ko. c' est dans ce cadre nag la ci boppam defoon commande ñu autoriser ko lu yàgg actuellement ñu ngi réceptionné 300 tonnes yooyu te incha allah fan yu néew dinañ ko distribue éleveurs yi nga xam ne moom la concerne